taabi'i yu ndaw yi ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi taabi'i yooyu léegi ñun possible na tey benn waay nett la dara ne la alaaji Malik ko wax radiyallahu anhu ñun ñi tey ku ma ne alaaji Malik nee na nangam may doog c'est la première fois muy doog dégg wax jooju man leer na ma ni déggewu ko ci alaaji Malik kooku leer na ma léegi lan moo des mooy moom fu ko déggee est-ce que kii ko déggee benn génération la wala ñaar kooku xamoo dara pour le moment il faut que ma laaj ko kooku tamit moom bu dee ci diw laa ko dégg kooku ma ma xool ba xam kooku fekkee na jamono wala déet léegi noonu bu ñu ko tegalee dinañ gis ne c'est possible ñuy toftale wax ji ba mu yegg ci juróomi nit ah parfois fukki nit mu ñuy doogee a yegg ca ka nga xam ne moom moo jël wax moo ko déggee woon ci alaaji Maalik radiyallahu anhu c'est possible non non te loolu lu fréquent la on est d'accord léegi nag loolu moo tax imam Ash-Shafi'i radiyallahu anhu loolu la leen wax dañu leen moo tax nag kon c'est pas parce que taabi bi dafa wax rek ñu dégg parce que mën na ko dégg ci ku ne te maadaama ki nekk ci diggante bi moom parce que bu ñu leeroon ne ab saxaaba rek moo dox ci diggante bi taabii bi maanaam ki nga xam ne moom mooy moom gis na taabii bi maanaam ki dox ci diggante taabii bi yenn sa alayhi wasallam bu doon leer na ñu ne saxaaba rek moo dox ci seen diggante kon de garaw mais le souci mooy loolu lañu mënta wóor te au moment où loolu mënuñoo wóor mën na nekk ay taabii yu bari ñoo dox ci diggante bi te ñoo koku nonu nekk ci digënté bi xamuñu kan la buñu xamul kan la mën na nekk ku wóor la mën na nekk ku wóorul la o moment où xamuñu kan la dañuy daal di yàq manam isnad bi yëpp day manam hadith bi day daal di tëb day yàqu mu joxe exception par contre comme exception bi nga xamante ne mom moom comme ibrahim an nakhay rahimahullah li mu waxal bopom non mom lool prendre nako en compte comme li nga xamante ne tamit Sa'id ibn Musayyib rahimahullah li mu wax Sa'id ibn Musayyib rahimahullah sétlu nañ ne parce que mom néna tabi'i bu mel non d'accord na mom bu ne yenen ci bi ne sallallahu alayhi wasallam ma accepté xadis bi mooy lan mooy gis na saxaaba yu mag parce que sayyidna Seydina Omar radiyallahu anhu bi muy bi muy génn àdduna moom fekkoon na ko am huit ans kon mom dunduna ak sahaba yu mag wa waaw d'ailleurs am na benn xutba boo xam ne la sayyidna Omar radiyallahu anhu defoon mom bi muy am 8 ans xutba boobu da ko dégg rek moo ko am waaw ba xutba bi jeex tàkk waaw Saïd ibn Musayyib boobu nag rahmallah comme moom ah, ah, ah, moom seetlu nañ tamit ne topp topp nañ mboolem lu mu soloo ba pare wax na ne yenent bi moo ko wax saa bu ñu ko toppaatee xoolaat ko wëraat dinañ gis ne effectivement ci ab saxaaba rek la ko déggee ba pare tamit mom du nek di dege ci ku kon bu woba dañu xamne kon lu mu ne yenente bi ne nak sa sam day dal di am atek teg ne yenente bi ko wax léegi koku nonu par exemple bokul ak ñi nga ñi la ñi ci dess ñi nga xamantene melu ñu ni mom te motax nak borom xam-xamu hadith yi nak lu ci ëpp avis imam Ash-Shafi'i lañu jël rahimahullah rahimahullah motax nak comme ñom mom lañu jël lolu motax manam version bi par exemple version ne dañuy dañuy même moo tax même Ibn Hajar la wax rahimahullah Ibn Hajar rahimahullah daane dëgg la boo xoolee version yi wax ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax te mu jaare ci ci ci saxaaba yi te jokkaloo radiyallahu anhum te jokkaloo yëpp yi wax ne dañoo war a wël tibbaat suuf si doog cee sotti ndox xadis yooyu yëpp dëgg la dëgëruñ mais boo ko booleeg mursal yi le fait que sax ay taabi yi di wax ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nañ moom daa waxoon ci xadis bi ne nañ tibb suuf si yooyu maanaam booleen boolee day daal di commencer am doole wax ji day daal di commencer dëgër waaw mais nag le simple fekk que mu am ay mur marasil maanaam mooy mursal xadis yoo xam ne ay mursal lañ le simple fekk mu am ko sa kii comme bu Taawus bi comme bu Abdullah ibn Ma'qil bi rahmatullahi alayhi yooyu le simple fait mu am xadis yooyu noonu bu fekkante ne imam Abu Hanifa ak imam Malik ak imam Ahmad ibn Hanbal lol day daal doy lay parce que ñom dañuy nangu mursal hadith mursal dañ koy laye dañ koy jël mais bu dé imam Shafi day day bañ du d'accord ba tey day bañ nit ki noonu Shafi waaw lol mom lañ gëna top parce que bakkar bu bi wax nek yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax te waxu ko loolu la daw wala. li ñuy daw moy dañuy bañ. askene la yonent bi sallallahu alayhi wasallam loo xamante ne nan lañu xamé ni moko wax comme tay sank eh, xam nga tay tay tay raisonnement bi ma la jox sank tay man mustafa bu ma taxawee ne gay Cheikh Al hadji malik radiyallahu anhu neena na nangam xam nga il sepp peut dama ko déggee ci benn nit ko xamantene mom moko moo ci Al hadji malik possible na non xam nga possible na voilà mais possible na aussi que dama ko déggee par intermédiaire yu bëree bëri on est d'accord léegi nag comme que ñoom xamuñu ban la ci ci kaay yii nii te xadis balaa ñuy wax ne yeneen bi wax na salaasam daa war a nekk lu wóor loolu tax borom xam-xam xadis yi ci ëpp topp waxu kan. imam Ash-Shafi'i mais sinon boo xoolee xanafi yi maali Maliki ak mbooloo mu bari ci xanaa bi lay rahmatullah alayhim ñoom dañuy jëfandikoo lan. hadith boo xam mursal la mais sauf que nak benen problème aussi amna moy de temps en temps aussi ñu wuute ci benn question hadith mursal di war leen a rek àtte nga gis gars bu ñu gisé de hadith bobu day contre da leen di contre dañuy bañu dañ nane hadith mursal dëgërul <laughs> ce qui veut dire que ni aussi manam euh, ñoom biñ euh, ko wala biñ ko bàyyi xel torop quoi wala <laughs> nan la no hadith bobu mursal la. mais bu bu xadis bi naree bu leen naree contre rek dañuy wax ne xadis boobu mursal na moo tax donc loolu te te loolu <laughs> voilà <laughs> loolu moo tax aussi euh, euh, euh, neexuñu moo tax moo tax loolu moo tax nag li li gën a woyof ñu wax ko mooy wax ne daal léegi nañ d'accord bu ñu jël rek lu dul lu dëgër parce que mursal ci côté yu daif yi la bokk même xataa imam Ash-Shafi'i rahimahullah même li muy bañ mursal mursal moom am na mursal yu muy d'accord par exemple nangu na mursal bi bu fekkente ne xadis bi mursal la moom d'accord na euh, ci bu amee beneen xadis boo xamante ne yeneen xadis yoo xamante ne dañ leen di départager ñu utiliser ko voilà yu tourné autour de loolu ñu utiliser xadisu mursal bi bu dee moo war a départager gars yi par exemple moom moo loolu mën na ko d'accord

su fekkente ne pour génne ci ben question la motax ñom ñoom dinañ motax ci bokku na ci condition yi moom ash shafi rahmalahu di utiliser hadith bo xam te dafa daif voilà mais yooyu yoyu ay ay ay ay ay ay teqantal la tamit yoo xam ci biir borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dafa dafa manam ay teqantal yu xóot la dal ci seen bir mais ala kulli hal li nga xamantene dal mom moom moom maanaam lañ bëggoon wax fii mooy nañ ko parce que dafa am parce que façon la un dafa am dalilul ilzam ak dalilul iltizam ak dalilul ilzam wal iltizam lan dalilul ilzam man il faut comme comme yow d'accord nga comme mu preuve la mané ko man nak dama koy jël ma ma ma di ko utiliser contre yow même bu dee man d'accord mu woon ci loolu. preuve la boo xamante ne non comme par exemple man ak yow ñuy were ñuy werante ci ma ne la d'accord léegi yow comme que yow d'accord nga au préalable am na préalable axiome boo tegoon ne lii d'accord nga ci man da même bu ma ci d'accordul man dama koy utiliser contre yow man mën naa ko utiliser contre yow au moment où yow d'accordoon nga ci dès départ comme tey par exemple bu fekkente ne damay weranteeg benn layib may weranteeg benn layib ma ne ko yow yaa ni wala wala wala ma ne ko yow yaa ni par exemple laïcité lii la wax nga ne waaw ma ne kon nag wala léegi nag mu utiliser ko comme contre ar maanaam argument contre moom loolu mooy dalilul ilzam léegi mu am dalilul iltizam mooy dalil boo xam dama koy jël man ma tegoo ko ma ne man lii man la concerné man yow mi may weranteel yow d'accorduloo ci principe bi mais man comme principe bi d'accord maanaam daf ma day dama ko gëm kon man mun naa ko mën mën naa ko utiliser di ko laye uh-huh. mën naa ko utiliser ko laye parce que axiome la déjà bu ñu teg maanaam loo xamante ne ah maanaam man <laughs> même yow boo ko d'accordul mais man loolu mooy dalilul iltizam maanaam mooy man dama koy d'accord parfois nag mu nekk contre ki tamit waaw léegi nag dalilul ilzam wal iltizam loo xam ne ñun ñii ñaan ñëpp d'accord nañu man ak yow yëpp d'accord nañ ne lii la comme tey par exemple euh, ñu ñu buñ ñëwee ci cadre xam-xam pour mu gën a leer maanaam tey buñ ah, ah, ah, ak zahir yi par exemple zahir yi bu ñëwee daan ni yéen wala euh, euh, da ngeen a d'accord ne qiyaas baax na mais waaw ñu ne tépp kon nag mu ñu daa di wax maliki yi léegi nañu qiyaas nangam ci nangam ak nangam léegi bu boobaa par exemple ñi ci dess dañ naan dañuy mëna dañuy duñu mën lu d'accord avis boobu même bu des zahiri bi ko wax moom gëmul limu wax manam gëmul ne qiyas baxna moy mooy raisonnement par analogie mom bu ko gëmul tamit manam mom da koy mais ñun maanaam ñeneen ñi des yeneen ñeenti mazhab ils sont obligés ñu d'accord ba say par exemple ab xanaf yi tay boo ñewon ñëwoon ni ko lii masala bi ngeen ak ben masala nga ni ko par exemple mafhumul muxaalafa mo ñuy départage moom bañ lu parce que mom gëmu d'accordul ne baxna kon yow mënoko utiliser lay contre mom loolu tax par exemple Shafi'i yi mënuñu won utiliser lay ak ak Hanabila yi rahmatullah mënuñu won utiliser lay dalilul hadisul qullatayni mënuñu ko won utiliser lay contre Hanafi lutax parce que Hanafi bi mom d'accordul ci mu khalafa deja donc mom mënu <laughs> Shafi'i mënut a utiliser lay contre Hanafi bi ci loolu alors que tay par exemple Hanafi bi doon nako ko mën utiliser contre Shafi'i bi mu nek dalilul ilzam léegi nag dalil ilzam wala iltizam mooy ñun ñëpp d'accord nañ ne lu alquran wax loolu la man toog bu ko waxee clairement wax jooju dëggal mën nañ ko d'accord nga ne waaw ñu ne ëcca mu mën ko utiliser lay contre man waaw comme tey par exemple bu ñu jëlee comme euh, euh, euh, xaj xaj pour mu gën a leer xaj ndax ndax xaj dañ koy maanaam mëneef na koo jaay wala déet par exemple xanafi bi rahimahullah par exemple kenn munu ko wax ne ko par exemple maliki bi maliki xam nga dafa jàpp ne xajj du sobe mais xanafi bi dafa jàpp ne xajj munef nuko jaay lutax ndax da am njariñ manam kon legui maliki bi bune bune bune nee bi euh yow xajj bi amul lo droit jaay ko muné ko lutax mu ne danaan ko parce que yow da ngaa jàpp ne sobe la moom loolu la ko wax alors que Maliki bi moom jàppul ne moom sobe la mu nekk dalilul ilzam léegi nag dalilul iltizam mooy Maliki bi ne parce que maanaam dañuy tere ku ko jaay tout simplement parce que yonent bi moo ne samanul kal bi xabis maanaam njëgu xaj dafa bon dafa sobewu moom bu boobaa day jàpp ne loolu la mais le fait mu nekk sobe moom mënu koo teg boppam waaw maanaam yooyu loolu par exemple loolu loo loo loolu euh, benn exemple la maanaam mën nañ cee may exemple yu bari mais comme fii nii xadis bi nii par exemple mun le fait que ñu ne dañuy tibb suuf si sànni ko par exemple loolu xanafi bi mën na koo wax contre maliki bi mën na ko wax contre xambali bi mais mënu ko wax contre shafi'i bi ndax lan ndax shafi'i bi d'accordul ci ne mursal dañ koy jëfandikoo. critère de base en fait. voilà oh. ce que dañuy voilà surtout que d'accord ak kan moment d'accord ci question bi wala alors que tay par exemple shafi bi a euh, euh, problème ci raisonnement bi Hanafi bi hadith mursal bu ko Hanafi hadith mursal bu ci mais du ci waaw bari nañ kay waaw xaw ma ko nag mais daal lu bari la euh, non non non vraiment xaw ma ko am na ci nag parce que léeg-léeg mu ne waxul li la bil irsal léeg-léeg mu wax ko daal indi xadis ba pare daal ne dañ koo sikkal ci ne xadis bi mursal la waaw daal de ko sikkal parfois am na par exemple xadis yoo xamante ne mursal lañ pour cent mais ñëpp ko d'accord ñëpp nangu xadis bi même Shafi'i dañ koy d'accord parce que lan parce que dafa parce que dañ koy jëfe ci réew yëpp xam nga loolu tamit parfois loolu la maanaam lañ lay xadis nit ñi mën nañ ko accepter tout simplement parce que dafa wër dafa wër réew yi ñi di ko jëfandikoo loolu moo tax ñu koy jëfandikoo mooy xam nañ ne xadis bi dëgër na dañu amul rek isnaad bu dëgër ci ci xadis bi wala bu jokkaloo mais xam nañ ñu wér loolu tamit day am dégg kon léegi ñu dellu si waat kon fii maanaam fa uhriqa alayhi ñu daal di sotti ndox mi fan ci suuf si léegi mu daal ci teg daal ne muttafaqun alayhi waaw kay bay même baat bi la am na riwaaya ci xadis boobu fal yuhriquhu fal yuhriquhu ak fal yuhriquhu yuhriquhu eh, ci fii la ju mooy baat bi waaw fa uhriqa même baat bi la ak fa uriqa mënoon la wax fa uriqa fal voilà mooy fal yuriqu même même baat bi la voilà même baat bi la dégg nga léegi mu ne muttafaqun alayhi maanaam euh, euh, mooy muttafaqun alayhi expression la boo xamante ne maanaam dañ koy wax pour signifier ne ñaari imam yu mag yi mooy imam al ak imam muslim rahmatullah alayhima ñoom ñoo bokk solo xadis bi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci dudul benn du ñaar euh, te loolu tamit euh, yaakaar naa ne détail la boo xamante ne jarul expliquer parce que al ittifaq moom mooy dëppoo léegi la fait que al ittifaq mooy dëppoo mooy comme euh, leg bu ko defee muttafaqun alayhi moy lo xamante dañ ci depp mais nak buñ ko waxé ñaari imam yoy rek mom motax ñu wax Abu Abdullah Muhammad ibn ismaeil ibn Ibrahim ibn Mughira ibn Bardiza al-Bukhari rahimahullah ak ki nga xam mom moy mooy Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ah ibnu Muslim al-Qushayri an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a lol dal mom moy manam yi nga xam ñom ñoo aju won ci baatu hadith wallahu a'lam léegi. su fekkee xadis bi dafa mursal. waaye ku ko indi tabiin bi dafa dafa dëkk comme ni ko waxee sànq ay ay saxaaba. comme sànq mu expliqué rek nga xam ne saxaaba bi daa nekkoon mag. moom mu nekk xale. boobu tamit Chafi yi tamit duñ ko d'accord. non non parce que xam nga lu tax. parce que il faut que mu wóor.

ñom duñu seet ana kan mo wax lan ak kan mo waxul lan ñom li leen taxaju rek moy dañuy seet dëggu yalla gi ak dëgg manam li yenen ci sallallahu alayhi wasallam indi ana fan la dëgg ñu féete té dañu gis ne bu fekkente ne dañoo woyofal totalement ci affaire xadis bu mursal kon dañuy jël tout temps hadith kon dinañ am manam hadith yu bari dinañ ko nangu fekk dëgërul fekk wëru parce que ci tabi'i même bu fekkentene ñu dëng ci ñom bari wuñ mais amoon nañ ño xamantene ne seen wax do fu ko woon accepté amoon nañ comme nag xamuñu ki nek ci intermédiaire bi kan la ak ndax waxam wóor na wala wóorul mat naa duma sa doom wala det loolu motax tax motax moo tax ñu baña accepter bañ affaire boobu imagine rek tay tay dañ toog tay imagine rek tay bu doon kenn ku toog rek daal di netal ni alaaji Baalik neena wala Sëñ Tuubaa nee na rek ñu ne di wax na dëgg imagine tay ñaata wax lañu askana askanale ñooñu fekk waxuñu ko. mais obligé la mais télé bi da ngay dégg kenn di wax mënoon bañ a nekk sax ci cadre bi mu ne joxe exemple rek. ne ah. waa yonent bañ na ko sax ba dégg naa ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Ah. voilà daa di wax. mais am na ah mais yana yana ko. waaw. ah rigueur rigueur bi ci war en tout cas. voilà voilà. loolu moo war a primer en fait. c'est-à-dire a wax benn wax wax dëgg yàlla. voilà maintenant nag comme ñëpp amuñu loolu léegi daal dañuy seet comme xamuñu kan la pour bi même bu bariwul xamuñu kan la kan moo nekk foofu léegi dañuy ne léegi nañ bàyyi ba mu wóor ne moo ko wax ñu doo ko accepté feeg nag wóorul duñ ko accepté au moment où sax hadith yi wér yu dëgër yi yi fi nekk te dëgër doy nañ bëri nañ bëri boo xam ne soxlawuñ di jël bu dëgëru waaw. xadis xadis xanaa dafa yéex a wàcc. Euh, non xadis yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax waaw xam naa mais xanaa dafa yéex a génn boog laa bëgg wax xanaa non xam nga dafa lu yàgg xadis yi di soog a génn lu am ay waaw voilà voilà si si euh, effectivement ci moo ko wax wala waxu ko xanaa dafa dem lu yàgg deelu yàgg saa effectivement non non xadis yi soog a waatam dé dé c'est que c'est que yenent bi euh, euh, génn àdduna bi mu génn xam nga da daan dund ak ñu saaba bi mu daan dund ak ñoom moom da daan wax maanaam da daan wax nit ñi di def ñu koy gis muy dox di kii di et cetera di doxalante ak ñoom di defalante ak ñoom di dikkante ak ñoom di leen jàngal seen diine et moom bi mu génnee àdduna saxaaba yi ñoo fi def radiyallahu anhu mu am yaay génération ak yeneen nit ñu tukkee ci yeneen réew yu dugg ci l'islam mu am yeneen génération yu juddu ñoo xam ne ñoom fekkee wuñ yeneen bi sallallahu alayhi wasallam léegi ñooñu ñoom saxaaba yi ñoo leen doon jàngal seen diine yi ñu ci yeneen bi sallallahu mais comme ni nga xamante ne mbir mi day tasaaroo day wër léegi dañuy dem ba à un moment nit ñi dañoo dem ba soxla ne il faut que ñu commencer dajale nag léegi li yenent bi doon wax dañ koy bind. ah parce que bi yenent bi doon wax naan dañu bind bi ñu woon. non non non yenent bi bëggul woon déjà au début ñu bind li mu doon wax de parce que da doon bañ ñu jaawale ko alxuraan bi d'accord. léegi parce que alxuraan yàlla waxu yàlla bëggul woon kenn jaawale wax waxu yàlla bi ak waxu kenn bi mu demee ba mu leer ne waxu yàlla léegi mi ngi nii leer na ñoom xam nañ ko mokkal nañ ko téye nañ ko léegi nag mu ci la ci la ci la ci la bàyyee permettre rek ñuy commencer mën a bind maintenant nag am na ñu doon bind effectivement mais am na ñoo xamante ne dañ doon wax ñuy dégg di jàngalee di ci comme ni ñu comportement yi nii rek maintenant nag dañoo dem ba benn génération nit ñi commencer remarquer ne mooy mais nag mais nag soriwul a ah mat un siècle déedéet matul un siècle de voilà ñu commencé yëg ne dañoo war a dajale li yeneen ci bi doon jàngale sallallahu alayhi wasallam moo tax Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu moom moo ko njëkk digle ne nañ ko def daal di koy bind Aboubacar ibn Hazm rahimahullah daal di koy bind am ñeneen ñeneen mu wër ci réew yi ne nañ dajale waxu yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam ba pare nañuy bëril jotaayu xam-xam yi parce que sinon xam-xam day réer xam-xam du réer lu muñ nekké nit bu nit ñi kenn ku ci nekk toogee sa kër naan man lima xam-xam naa ko naa toog loolu rek bu commencé lay buñ ñu génération bu ci tegu rek dañuy réer do ñu xamante légui nak mu ne nañ def lool légui motax imam az-Zuhri rahmalahu ah Muhammad ibn Muslim rahmalahu tudd Muhammad mooy ibnu Shihab az-Zuhri rahmalahu mo mo njëkk bind xadis comme li as-Suyuti wax rahimahullah ci alfiyam wa awwalu ja awwalu jaami' al-xadis wal asar ah ibnu shihabin amirun lahu umar voilà ki nga xamante ne moom mooy njëkk bind xadiis yi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ibnu shihab az-zuhri rahimahullah ki ko ko digaloon moom mooy omar ibnu abdul aziz radiyallahu anhu kon moom moo ko digle woon ne nañ ko bind mais dañuy gis ne comme moo tax ñu commencé def ay di bind di def détail xadiis yi mais sinon bu njëkk ba

nii di defar daara kii nii pour jàngale rien que waxu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam déedéet maanaam mais niñ ko doon defee mooy <laughs> par situation lañ ko doon jàngale voilà ni ki noonu nag c'est vrai que Aboubacar kii euh, Abu Hurayra radiyallahu par exemple ak ñeneen ñoom daan nañ toog di jàng di wax hadith yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci jàkka yi et cetera mais yooyu noonu nekkul woon loo xamante ne dañ ko tëraloon mu nekk institution léegi te daanuñu ko bindu tamit légui nak après buñu démé demee jamono légui nak dañuy soxlu képp ku wax né yeneen ci bi néna da ngay indi wax kat mo lako wax xataa ibn abbas radhiyallahu anhu don nako mu né ñun bu njëkk ba ku daan wax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam néna dañ la naan dëgg daal di dañ lay gaaw suñu bëtt yi ak suñu nopp yépp fixé wu ci yow mais biñu démé ba nit ñi commencé di wax lu leen neex bi ci duggal ay yu ci bokul ci lañ tambalé ku wax yeneen bi néna ñun duñ la sax bayyi xel ba mu dess so nekkee ku foog nga wóor moo tax eh, eh, eh, ki ki maa tax baatu isnaad ci boppam ki ko njëkk tudd mooy Ibnu Sirin Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah moo ko njëkk a wax waaw baatu isnaad moom moo ko njëkk wax moom moo jëkkoon a wax ne parce que tamit da le fait ñu nekk ci réew moo xam ne lutu bidaa yi dañ faa nekkoon ko moom Basara la nekkoon ak ñoom ñoom foofu dafa amoon ay lutu bidaa yu ko commencé woon dugg comme xawaa kii euh, kii xadar yeeg ñooñu léegi nag à un moment ah léegi nag

Euh, euh, maanaam euh, xaw ma ba xam tontu naa ci question bi. <laughs> <laughs> c'est juste polémique bi amoon ci est-ce que moo ko wax. ah d'accord waaw waaw mais. quand ni longtemps après lañ commencé parce que hadith moy application sunna. moy sunna moy wax yeneen bi wax wala lumu def wala. moy application sunna comme sunna yonent Yàlla mohammed sallalahu alayhi wasallam moo ko digaloon. waaw mu xawoon ma jaxal lutax nit ñi naan mo ñu koy non ñu koy discuter longtemps après ça moo ba ci ah. xalaat ndax moo ko waxoon wala waxu lu tax commencé ñu ndax mo wax li wala waxul li waaw parce que tout simplement xam nga tay mi ngi melni tay euh euh, euh tay buñu jëlé kenn ci kilifa yu weesoo ni rek ba bu yàggul rek tay par exemple comme tay buñu jëlone jëloon par exemple El Hadj Abdou bi radiyallahu bi nga xamné mom yagul buñu ci ñu tay ñu xol ba xam mo wax nangam wala waxuko rek tay dañuy am problème ni ni ni ni parce que il faut que tay boo man tey bu ma ñëwee ne la Alaaji Abdou Aziz radiyallahu anhu wax na nangam xam nga possible na ma dégg ko ci moom mais possible na ne dégguma ko ci moom man léegi nan lay xamee ni moo ko wax yow nan ngay xamee ni loolu man li ma wax dëgg lu dul nga ni ma wax la nga wóolu ma déjà premièrement mooy nga wóolu ma ñaareel ba mooy après man ma wax la nga laaj ma léegi man ci kan laa ko dégg parce que man mën nga ma mën naa mën nga maa wóolu fekk man ci ki ma ko dégg